Euh, Walloum Amat Suzanne Kamara. Euh, après sa lourde charge contre les tenants du régime actuel, Amat Suzanne Kamara, arrêtée auditionnée, est en garde à vue euh, à la sûreté urbaine en attente de son déferment aujourd'hui, Taïdini. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à, enfreindre les lois. Le procureur euh, s'est autosaisi et a transmis euh, le dossier au commissaire euh, Barra Sankaré de la Sûreté urbaine. Comment l'enseignant a été arrêté hier chez lui, qui dit Vox Populi, Niwan Nassi, Ahmed Suzan Kamara, Kadou Ramne. nga xam ne yëkkati na ko le président Bassirou Diomaye Faye Moustapha mu comme l'Inga nga xam offense au chef de l'État ak sax kaddu yi euh, tegginu yi nga xamné aussi euh, mën nañ wax depuis un certain moment euh, selu neen ko aussi si plateau télé yi ki di Ahmed Suzanne Camara dafa ñëwaat rek en français wat le clou wa dafa ñëw enfoncé le clou muy lo xamantene pour man bettul ken mm. légui nak fi man limay limay ñëk def moy interpeller responsabilité journaliste yi mm. parce que mon il y a de ces gens il y a de ces responsables politiques yo xamantene pour man waratu ñu autoriser ben rédaction ñu leen defal ay direct mm. man loolu dañ ci war a waxtaan suñu biir ñu xool nu ñuy def. Mm. am na journaliste yoo xam ne am na activiste yoo xamante ne am na homme politique pas journaliste dama juum dama jum am na ay homme mm. am na ay activiste am na ñoo xamante ne kenn waratu leen defal direct. Mm. da nga leen war a jël enregistré ba pare. Mm-hmm. nga dugal. pre à diffuser ngeen def boo enregistré ba noppi bu fa saagaa mbaam ma defa lu nekk yow ñu jël vidéo bi dagg li ñuy dagg daal di dugal leneen li mu dem. Mm-hmm. mais pour man tey jii lii daf ñu war a waat ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci organes képp ku jóg rek ñu defal ko live mu wut bësam saaga ñi muy saaga daal am bësam gars jàpp ko mandat de dépôt nañ ko am na retour de parquet nangam ak nangam mu li ma doon seet bëgg naa ko li ma doon seet am naa ko parce que boo xoolee tey ji waa ji li mu doon wut lépp mooy ku ko jàpp mm-hmm. li mu doon wut lépp mooy ku ko jàpp te effectivement jàpp nañ ko mm. léegi nag étape bi ci war a topp mooy lan naka la ñuy def ba dootu ko defati mm. waaw naka la def ba dootu ko defati. pour man foofu la deuxième étape bi nekk. mais su fekkee ne jàpp nga ko mu génn récidive mbaa mu génn am taxawaay ba mu amaat la arrestation bi échoué ngeen. Mm-hmm. léegi nag naka ngeen def ba dootu ko defati foofu la mbir mi nekk ak jàpp gi naka ngeen def ba mu servir d'exemple. parce que boo xoolee bëri na ñoo xamante ne tey jii ci nguur gi passé lañ nekkoon mais ñoo gën a am koom ci ci nguur gi Amath zane Camara. Mm. ñoo ko ci ëpp xaalis ñoo ko ci ëpp poste de responsabilité mais ñoo ko ci gën a. am na naqar biñ ñàkkee nguur geeg léegi nii tey ji moom lu mu ci am daanaka amu ci dara kon lan moo waral mu doon agité wu am benn comportement boo xam ne ña ko waroon am sax amuñu ko. Mm. léegi kooku bu melee noonu nga bàyyi ko. Mm. ne waa parce que liberté d'expression la ñu wax li mu wax garaawul parce que fen la wax mais quand même il faut que ñu respecter sénégalais yow ak façon bi nga ko waxee diw day fen diw naa nga insister ñu la nga ne waa nga ne ko sa sa président mu du sama président waaye léegi taxawaay boobu nit am ko njàpp ak mën nga mën nga tolérer lu nekk. Mm. mën nga jég ba mu des reewande parce que yenn yi réewande kese la proprement dit réewande la waaye léegi réewande boobu nga def ko ci penc bi ouvertement dañ koy bàyyi ne léegi liberté liberté liberté d'expression la wala leneen ak leneen léegi dañ koy dañ koy bàyyi noonu daal nit lii war na fee jógee article bi nañ ko dindi nit ñi dem ci télé di saaga di saaga nit ñi saaga ay nit lañ mhm. wala di wax yenn wax yu ñaaw yi parce que pour man ak d'accord ma ñi naan dañ ko fi war a jëlee suñu démocratie daf ko war a dépasser déedéet tant que saaga mënul génn si gémmiñu nit ñi euh, ku saaga ñu toj sa gémmiñ mënu fay jóge tamit il faut qu'on soit clair délit bu fay jógee day fekk nga Je ne amatul kenn wala bu dem exception la mais ji ko fiy faire bu may la live soo ba ngoon la après nga non démocratie lañ nekkat ñun légui dañuy xol comme États-Unis fofu mën nga tok wax lu neex da ngay dem ba devant Maison Blanche nga manifester société société du Sénégal fi il faut ñu comprendre dafa am ñoo xamné xamati il faut nga recadrer len té lolu dimbal la parce que bo len ko deful yaa ngi déggoon déjà am ñu commencé non fuma dajé ak mom ak nangam ak nangam da di parfois arrestation dimbali la ki nga xamantene mo mo moo def moo def jëye ji mais suñ ko bàyyiwoon noonu rek amana am nañu mën nañ fajal seen bop mu jur mu jur benen problème. Cheikh Bara qu'est-ce qu'il a dit parce que gis voisinage nga man mhm. ñom ils font partie euh, de de l'émission je les lis mhm. euh, loolu Cheikh Bara lu mu wax par rapport à cette affaire à Monsieur Suzanne Camara. non Cheikh Bara nee na ci arrestation bi parce que démocratie waroon na romb lii ak non la mel quoi daf ko daf ko grawul ko quoi moom nee grawul euh, bon. Ahmed Suzanne li mu wax ak ak nangam ak nangam maanaam tuutal mbir mi ba suñ ko toppoon sax duñ ko jàpp. ah Cheikh Bara loolu la foofu la toll waa moom moom foofu la toll man nag d' ak moom. Mhm. parce que man dama jàpp ne kilifa lenn la am mooy xorma boo ko dindee ci moom dara desatu fa. ok président Bassirou Diomaye Faye ak loo ko mën a bañ bañ ak loo ko mën a contre contre ak lépp lu mu tem France ba la mu jëm la président sénégalais la ñuy wax donc il est président de tous les sénégalais boo ko saagaa mel na ni saagaa nga sénégalais yëpp. boko toge wax lu ñaaw wax na mais c'est pas pour rien tayji ji bo nga dégg mu ne la ba résultat yi génné dafa ñëw ba gendarme yi ñëw commencé ko wër dama bëgg delu sama kër ñu ne ko no mëno fa delu dem nañ xol sécurité way mais c'est pas pour rien kon koko tayji momatul bopam walé ku momatul bopam ñepp ko bok est ce que yoon la nga taxaw ci pench mi diko ni ko yor nagu tam xarit ok c'est pas du respect mën nañ waxtaan te duñ saagante njàpp mën nañ waxtaan ñaati nit ñoo wax ne abdou mbaw génn doon wax ko fële mais ku nekk ak façon mi nga ak ni nga toll ak ni nga waxee mais jóg directement pour accuser nit ki pour saaga nit ki pour diffamer ko loolu dafay war a jóge et nag pour man moom lii mu def nii ak Bah li mu def nii warul bett ñu bëri parce que ñëpp xam nañ ne nguuru bu daanoo dina am ñoo xamante ni ñoom ñoo njëkk jóg di xataraayu maanaam du ñu nangu ne ñu ñàkk nañ wala wala wala wala daan nañ léegi nag yow boo ñëwee ñooñu ngay njëkk préparé maanaam ñii nga xam ne du nangu naka laay jàkkaarloo ak ñoom te moom mi benn cas la boo xamante côté bo xolé sama man tok toog ak est-ce que Ameth euh, ça va dans la tête quoi parce que yenn réaction ak yenn comportement nit bu koy am mun nga mun nga poser yenn question quoi. quoi des fois <laughs> wàllum psychologie. non non si si. sénégalais yi duñ ci baye xel. la mais est-ce que xam nga ne am ñu bëri ñu ngi euh, espace public yi di wax mais waruñoo wax c'est des gens yo xamné ne hmm, dañoo instable psychologiquement bo xamé nit sax euh, su tu étudies la personne réaction yu muy def même son gestuel di nga xam ne kii ñaari cinquante yëpp njàpp njàpp yow comprendre nga parce que xam mm-hmm. nga tamoo la tay ji mm. mais xolal ci ay sortem rek ñi mu dajalo non xam nga tay on parle de Ahmed Suzanne mm-hmm. mais il y a beaucoup de Ahmed Suzanne unique euh, Sénégal te stable euh, psychologiquement sa euh, mhm. stable gis nga mhm. Moustapha yow sama tu le sais mhm. moi je cache pas mes amitiés mais de envoyé ma à Ben tweet ramener de dafa il a fait une sortie euh, j'ai pas suivi l'émission mais euh, dafa mel ni comme dafa défendre euh, li nga xam ne la Ahmed euh, Suzanne Camara def gis naa si poste bu ma envoyé sa mu naan tey jii les insulteurs ñoom ñooy veulent interdire l'insulte mu mm-hmm. nekk loo xam ne dëgg fa la venant de Thierno moi je j'ai même pas répondu à ce message en fait man mm-hmm. ça m'a choqué parce que japp na ne Thierno Bocoum nu en tant que personne mom il ne va jamais insulter qui que ce soit. Mm-hmm. donc que dans une logique politique wala sax position politique amna yo xamné il faut pas nga défendre ko. Qui euh, di Amadou Suzanne Camara lu mu wax kérok ko ko cautionné loolu tegoo ko fenn Ahmed Camara il a habitué les gens si wàllu mu wax yoo xam ne ñàkk tegginu mm-hmm prison kenn yéenewu ko kenn man jàpp naa ne prison kenn du ko yéenee sax noonam mais man je pense que Moustapha Sénégal moo am problème mhm. gis nga nit ñi dañoo dem ba banaliser li nga xam ne moo nekk wax bu ñaaw mhm. insulte dafa nekk benn règle boo xam ne dañ koo instaurer suñu ay société mhm. da ngay gis carrément violence bi nit ñi di am sax sur les réseaux sociaux balaa ñuy content rek daggal la ndey ba -hmm parce que loolu lañ tàmm di wax ci seen kër yi. Mhm. même plateau télé yi léegi da ngay une personne qui est calme pondérée pour me faire passer ça son message il a du mal parce que on a habitué aux Sénégalais si benn violence du vrai verbal jàpp ne carrément loolu mooy pertinence loolu mooy li nga xam ne moo nekk guerrier te ces genre de truc euh, moo raam c'est suñu société ba fum tonni mon mu dugg euh, suñu euh, politique avec la démocratisation de l'information ba Diakhaté jàll na fi Ahmed Suzanne Camara jàll na fi on avait notre Assane Diouf Assane Diouf tay mm-hmm. jii ñi nga xamné ñoy ñaawlu yëf yi Ahmed Suzanne Camara Il y avait un moment nous ñoo applaudir à euh, Assane Diouf ainsi de suite à consort gi nga xamné ñom ñoo nekk di nit on a une société à éduquer la société sénégalaise moi, un problème il faut que nit ñi dem carrément on est des soit des personnes normales civilisées et que l'on se comporte comme des personnes normales civilisées Nous avons, li nga la culture du respect sénégalais respecté wantou da ngay gis carrément insulter la mère des gens mm. kan moo kan moy contane dégg ñuy saga yaayam mm. loolu neexul kenn wala kan moy contane nit nga wax le président de la république ngay jël yenn kàddu wala Ousmane Sonko wala sax Thierno bokum wala keneen kan wala sax xalé bu ndaw bi sax t'as pas le droit wax ne ko di koy saaga amul droit d'accord avec les propos de l'autre Moustapha tu démontes? ak sa pertinence ak sa xam-xam mais finalement suñu ay carence intellectuelle dañ koy caché si li nga xam ne moo nekk violence verbale bi te man jàpp naa ne violence verbale bi li nga xam ne ñu ngi koy def ay ndëpp si wàllum justice ñun suñu wàllum comportement Moustapha moom leen war a ndëpp te loolu a commencé par ces hommes politiques euh, Tcherno franchement, tu es un frère, je t'apprécie beaucoup, mais man japp naa ne euh, sa position bi yi nga xamné euh, yang koy jël par rapport ak euh, ay Ahmed Suzanne Camara bu la wàññiwul du la dara Mustapha. wa mais dama lay rejoindre foofu parce que man ay yoy ay positions yi ferme la ci am ki nga xamné dafa saga xam nga ki sox sax mën nga né parfois mën nañ ko mën nañ ko nax on peut se tromper de bonne foi hein. ñu jox la benn information ba mu ne sa source moo la ndax wala leneen nag leneen mais jël wax kàddu gu ñaaw yëkkati ko jëmale ko ci at ah. nit kooku moom pour man juum amu fa lu ndax amul. moo tax dafa war laaj ay sanctions yoo xamante ne foofu du ma fa d'accord ak ñi waxal naan dañuy indi exemple France diw ba mu defee lii diw ba mu defee nii diw wax na fi nii wax lii du ñu benn. du ñu benn parce que ñoon tey jii doom ju taxaw ne papa tuuma wala papa da ngay fen du dara si ñoom.

loolu mooy démocratie. Ah, loolu moom bu dee démocratie baaxul nañ ko delloo fu ñu ko jëlee loolu moom kenn mënu ko nangu. da ngay normal nga nekk une personne civilisée. nit mm-hmm. day nité Moustapha. effectivement mais yow élégance zéro civilisation zéro. toi lan moo lay neex moo nekk démolir la personne ou yàq der euh, nit keeg yooyu noonu il faut que les sénégalais mm, ñu nekk nit gis nga bu ñu amee li nga xam ne moo nekk bu ñu amoon sax 10 000 président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. et on n'a pas une euh, une population civilisée sérieuse correcte Moustapha mm-hmm am li nga xam mo nek chaque jour xawma ñuy am des milliers de des milliers de barils de pétrole yu génn fi suñu dëkk bi ta am une population bu normale dañuy nekkat ci li nga xam mo nek ci sous-développement bi ñu nekk da ngay gis des pays comme euh, ay euh, Chine. Mhm. Corée ay Japon nang anglais enfin ne ñoom di nga gis ay nit yu tok ci sen télé di saaga les gens les invitent wala nit ñi di leen publicité parce que bu pouvoir ben angle wala leneen ak leneen il faut arrêter ça ça c'est un problème de sénégalais nit ñi nañu bàyyi ay saga ay insulte nangam nangam nañu yow en fait les sénégalais sont très indisciplinés commencez par man mën nga wax li nga bëgg li nga mun nga wax li nga bëgg wax te doo saaga kenn ñaata nit ñoo fi def émission di wax di ñibi te dar du leen ci fekk mais malheureusement non fii boo waxee simple dañ on va te traiter de tout non non mais mais am na fi mais am na fi njàpp tey jii lii exception la fi ah ñoom ba ñu daanoo ba léegi ñaata ñoo fi def émission chaque jour nga gis leen si benn plateau est ce que est ce que wax nañ lu leen fa yóbboo waxuñu ko mais lan moo waral moom tey jii il est habitué des faits koo xamante ne à chaque fois moom mooy dem leen kër Ousmane Sonko ngeen ko bu ngeen ko fekkee ngeen taal ko bu ngeen fekkul képp ku ngeen fekk ci kër gi ngeen taal ko ak moom mais loolu kàddu yooyu nga yëkkati ko ci dëkk bu normal ñu bàyyi la nga xëy dem suba dem ñëwaat nañ ko rey woote def fi laay fii ne nañ nañ ko ray kii dañ ko war a ray warul dund waaye léegi loolu lépp nga di ko def ci benn dëkk boo xamante ne moo tax ma ne gis nga fii ak euh, at yii di ñëw ci kanam mënuñu fee wax dara te ñu ci Macky Sall lii lépp lépp lépp lépp xaaj bi ci ci ci ci moom la bàyyi ndax moo ko cautionné da ngay ànd ak moom di saaga dara du la ci fekk ngay saaga nit di saaga kilifa di saaga opposant di saaga ku ne dara du la ci fekk Moustapha di nga saaga yi nag boor boor yëpp la de. non mais d'accord na mais ñi àndut ak Macky doon saaga dañ leen doon sanctionné mais ñi ànd ak Macky di saaga kenn du leen sanctionné loolu moo nekkoon malheur bi saaga xaw ma les insultes c'est sénégalais. mais d'accord naa ak yow Moustapha sénégalais jàpp na ne carrément fekk saagalu saagawu la rek. moom waxu la dëggam jàpp d'accord naa ak yow mais dama ne su Macky Sall ay ñoñam yi daan saaga dara daaw leen ci fekk loolu kay lu am la te exemple yi ma la cité léegi bëri na da nga daan ànd ak ñoom boo saagaa dara du la ci fekk te bu dee ñu nekk ci côté bële ñoo saaga dara fekk leen ci loolu moo tax ma ne fa problème la woon parce que bu doon ñoom bu ñu saagaa mu teg leen ci yoon amaana nañ bàyyi saaga lañu ñu wàññi. Hmm, en tout en tout cas euh, man j'ai l'habitude de dire que nos hommes politiques là Moustapha euh, wàcceewul si asamaan si. Euh, ay garab yu dugul leen. si kër lel leel ko modèle bi nga repro bu ngay indi sa cœur Moustapha mom ngay reproduire ci li nga xamné mo nek ci si politique bi il faut que les mm. sénégalais ñu xamné carrément que discipline rek monnaie ñu mëna yobbu de li nga xamné mo nek xawma prospérité xawma émergence xawma sax mm-hmm. développement il faut que euh, vraiment man ces discours haineux nit ñi di soxorante ay defal ki li euh, ki pour mm, franchement c'est des choses yo xamné ne Moustapha euh, mm-hmm buñ ci nekkee duñu dem fenn Ameth Suzanne moom euh, dëgg fa la man jàpp naa ne kooku psychologie bi. soxla na ndimbal. loolu leen war a xool parce que koo xam ne yow musoo am sax mosuñu la nommé dara si mm-hmm. kii bi moom mosul am dara si xeex bi. non non ba ñu il a toujours resté le simple enseignant. ci ci wetu bi muy démarré yóbbuwoon nañ ko fële assemblée nationale après mu am jafe-jafe ak ñas ñu génnee ko ba léegi amaatu ci dara. non mais c'est c'est c'est c'est c'est vrai euh, en tout cas euh, en tout cas tàng na daal fait moi war déjà ñu nek ci ñi si kër yi rek ñoo problème ci. période <laughs> ah. déjà ñu nek ci euh, période de chaleur bu metti euh, fini ay pour des histoires d'insultes war la yobbu prison mom euh, du courage prison mom kenn war ko yéene kenn mm-hmm. peut-être le président dina indulgent Euh, bàyyi xel baalal ko par rapport ak insulte yi man jàpp naa ne insulte yi. da nga naan président na na na leen bañ a fay seen bor parce que bu ñu ko fayee borom du gaaw a génn. Mm, ñoom seen mm. bor saaga dañ la daan ubbil instruction. Mm. waaw kon da nga naan kan yàlla na la président bañ a fay sa bor parce que bu ko président fayee borom du gaaw a génn. loolu nga koy ñaanal ñaan boobu la gën a soxla bu ñu leen fayee seen bor moom du ñu gaaw a génn parce que fii lañ fi jàpp doomu jàmbur mu partagé fi ay reetaan mbaa mu caricaturé kenn ñu jël ko yóbbu ko ubbil ko instruction. nga def sa post page nga xam ne lii xam nga ki ko bind xam nga lépp nga ne mm-hmm. noonu dama ubbi instruction jël ko yóbbu ko dénk deuxième cabinet bàyyi ko mu mu toog rëbës nga dem toog jàpp sa njàmbur loolu lépp dund nañ ko fi sous Macky Sall heureusement avec euh, l' avènement de ce nouveau régime constaté nañu doxuñu seen ay tànk mm-hmm. parce que gis nañ baa jaxate niñ ko àttee gis nañ ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne jaar nañ fi te amul benn lenn luñ ci mën a wax en tout cas en tout cas euh, espérons que le